mën naa wàcc kay xanaa gannaaw cant gi ñuy commencé ko ci ki sos daara ji ak ñi ko jàppale boo ko dinaa la muy Serigne Fallou Seck sëriñ Talla Mbaye Serigne Fallou Seck ak Serigne Talla ak sëñ Maam Mor Seck ñoom ñi nga xam ñooy dëkk bi ak sëriñ moo Guèye ak ñi koy jàppale ci daara ji ñi ñi ngi du bari bu ñu ci nee monsieur lay ak monsieur Sarr ñi nga xam ne xam nañ leen ci jëmm ak jëf ci lu yàgg yàgg bi dara ji commencé ba nëgëni ñoo ñooy sant gi cant nag du weesu jërëjëf euh, loo ci teg rek mënut a romb loolu kon amal na leen cant goo xam ne gii mën nañ kee ji ñu ci suñu làmmiñ waaye ci suñu xol mënuñu koo wax euh, ndax gone ku la ko yoral lu ñu la ko yoral bu leen gis ñii nga tiim nii gis leen muy suñu njaboot melokaan wii ñu mel nga xam ne xëy ñu dara ci ñoom du rafle du tilim du xiif dara nekku ci ko ku loo ko defal mënoo ko wax lu dul jërëjëf yàlla mi nga xam ne moo mën a fay rek moo la ko mën a fay kon sant nañ leen bu baax cant goo xam ne amut kem amut fu mu commencé amut fu mu yem jërëjëf yàlla leen yàlla fay yàlla mi nga xam ne moo mën a fay te am fay yàlla na leen fayal te yàggal taxawaay bi ah, bu dal la ñu soññ parents d'élèves yi nga xam ne noo noo noo leen jiite eh, ñëwal leen fii di leen waxal jiite wuñu leen fee jox cadre rek leen waxal ñu leen soññ ci li war ci ñoom ñii def nañ ko ba mat sëkk noonu leen war a deser ci ñoom mooy ak yëg rek xam ne ñii nu yoral yëg nañ ne yoral nañ nu ñii ñu yoral te loolu ñoom lañ ne ñoom nam waxal leen ko xamal leen ne ñoom di nee nañ xebatuñu xeebuñu dara ci li ñuy def nii kon jërëjëf rek lañ leen amal seenu njaboot xiifuñu maruñu te la ñuy def ci ñoom ñu andi leen fi muy alxuraan mënuñu ko ñoom yéene leen ko mënal kooku nag yàlla rek mool mool fay kon nuy ci suñu bopp nag ñu xam ne nuy itam war nañoo am luñ def ndax suñu yaayi daara yii nga xam ne ñoo leen jiite ñoonu njëkk a jóg doon jëf bariwut bari na waaye yéene la woon ren jii nag ñu ne nuy itam nañ def liñ def li ñooñu def nii ndey yi def na ko bàyyi def ñu ñëw fii bëgg koo jëmmal tey jii ne leen am nañ euh, association boo xam ne bii bàyyi daara yi ñoo ko sos ah, loolu nag dañ koo indi indaale fa ay carte membre yoo xam ne yi mi ngi fii ci Baye Abdou sekk bépp parent di la boo xam ne bii góor nga ak bu jigéen war nga faa dem jënd carte bi carte bi dañ koy wecc ko rek mille francs lañ koy def na kenn ko ne dem jël ko te bokk ci ñi nga xam ne ñooy taxawal daara ji lu bon bon bon ñu kii ndax tool kat lu mu yaatu yaatu ginnaaw mbay mu baax la xañuñu kenn mu bay ci loolu rek moo tax ñu def ko waaye du lenn lu fi manqué wala lenn luñ xeeb ba tax ñu def ko waaye nag lu baax du doy te yéene nañ ñu bokk ci kon na ci kenn ku ne jéem a def lu mu man ba indi sa tur jël ci carte yooyu kenn bokk ci ñi nga xam ne ñooy taxawal lii ndax lii samp na ba pare ginnaaw taxaw na ba pare ëpp na fukki at ak nangam ñu ko def dara mosu fee manqué kon buñ ñëwee wax loolu dañoo xam ne sax yéex na joo jóg waaye nag ñàkk jóg moo ban waaye yéex a jóg dara nan bokk ci ñuy àgg rek yàlla na ci yàlla boole kon nu ngi leen di sant di soññi parents yëpp ñu xam ne lii noonu lañ ko fi defal sun gone yii toog nii mel nii ñu mel ñi tax ñu mel nii ak li nekk seen xol yii ñu xam ko mooy roow ñu def ko ci ñoom yàlla rek moo am pay yàlla na leen fayal ah, kon nag noo ngi yemale foofu wax ji ah, di xam ne jërëjëf mënut a passé jërëjëf yàlla na leen yàlla fayal jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu suñu kilifa yi fi nekk yëpp di commencé ci Baye sëriñ ak ñëpp rek di ñëpp di nuyu yaay daara yi wax ji moom soññee rek lay nekk pour ñoom ñu gën a góorlu xam naa ay jàmbaar lañ sax waaye dama bëgg ñi nga xam ne bokkuñu ci ak kii yaay daara yi ñëpp ñëw bokk ñu mën a góorgóorlu li ñuy joxe par bariwul ñëpp di barkeelu ñu mën a gën a jàpp bu baax a baax ndax kaay ñu liggéeyal alxuraan moom ku la ko wax yow laa àndal maa ngi soññ yaay daara yëpp ñi nga xam ne bokkuñu ci groupe bi ñu ñëw bokk ci groupe bi ñu mën li xam wax li xew ba lu xew ñu mën cee bokk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 الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل ثم يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث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 bala may jël sama kàddu damay njëkkante rekk ci xale yoo xamee ne dañ leen a war a jox ay neexal ngeen baal ma ñu génnee xale yooyu ba noppi ndax ni daara ji tëdde bëgg nañ fu waay nekk moo xam ci jàngalekat yi la walla ci liggéeykat yi walla ci xale yu ndaw yi jàng Quraan bëgg nañ boo defee ak njàmbaar ba ràññeeku say moroom rek daar gi am fu mu la féete wan la ne yëg na li nga def moo tax kalaasu jàngi quraan yi fukki kalaas la fukki kalaas moo fi nekk kalaas bu ne vingt personnes lay jàngale ba mu des kalaas bi yor ijji moom mën na koo ëpp kalaas yooyu nag kalaas bu ne dañoo tànn xale ba fa gën a nangoo jàng ci an mi xale ba fa gën a nangoo jàng waxuma xale bu fa raw waxuma xale ba fa ëpp lu muy tari waaye nongoo jàng donte amul xel waaye nga xam ne kenn du ko soññi sim njàng xale yooyu fukki xale yooyu danañ leen neexal bu dee ci école ba tamit classe ya fa nekk muy ñeenti kalaas ya xale bi fa gën a ràññeeku ci at mi moom itam am na neexal moo tax bala may jàll xale yooyu dama leen tudd ñu woo leen fii sëñ Talla Mbay mi jox leen seeni neexal bu ko defee ku ci déggul sa sa doom boo demee nga soññi ko xam ne fa muy jàngee am na xale bu ko fa gën a dàq gën a nangoo jàng ña njëkk a tudd xale bu ñuy wax Ibrahima juuf yaayam di Aysatu Ngom baayam di Sidi juuf muy jàng ci kalaasu Moustapha Jamil kalaasu Moustapha Jamil lu mat juróom fukki xale yuy ijji ña nga fa woon waaye an mi gis nañ ne moom moo ca gën a nangoo jàng moo tax kon moom itam dañ koy jox ab neexalam man ngaa taxaw ñii ba ñëpp raase ndax ñu mën leen a jëloonu benn image sëñ taala nga soog leen a jox xale bi ci topp di Cheikh Thialla Mbaye daba xumba di yaayam bàyyi ma mbay di baayam Mañaaw Fall doon ko jàngal ci kalaasu Mañaaw Fall ñaar fukki xale nga fa waaye gis nañ ne moom mi at mépp Mañaaw tànn na ne moo ci gën a nangoo jàng dañ koy neexal moom itam xale bi ci topp di bàyyi Serigne Gajaga bàyyi sëriñ gajaga yaay jaaba gajaga di yaayam baay xasan gajaga di baayam mu ngi jàng ci kalaasu Cheikh Mbay foofa tamit kalaas boobu mën na fukk ak juróom waaye moom mii gis nañ ne moo fa gën a nangoo jàng xale bi ci topp di xaadim ngom maam jaara njaay di yaayam Cheikh Saar ngom di baayam muy jàng ci kalaasu sëñ Modou Diom Modou Diom gis na ne ñaar fukki xale yam yor at mi kii moo sa gën a nangoo jàng Silla nay Mariam Sylla di eh, yaayam baayam tudd Laat Sylla bàyyi sëriñ Seck di ko jàngal foofu tamit classe boobu la fa nekk mën na fukk ak nangam gis nañ ne moo fa gën a nangoo jàng classe bi ci topp di ki ñu wax mooy ki ñu woo mooy Laan Mbay yaayam tudd Ami Ndiaye baayam tudd Pam Mbay Modou Guèye moo ko doon jàngal ah Baye Aliou Sylla Baye Aliou Sylla anamu ñëw na ñëw na de waaw six xale laa tolloogun aywa Fallou Jaxate moo ci topp fal lu Jaxate Astou Sylla mooy yaayam Tafa Jaxate di baayam Njoogu Géey moo ko doon jàngal moo fa gën a ràññeeku ki ci toppaat di lu Seck soxna Toola Mbàkke mooy yaayam Gala Seck di baayam Sëriñ Xaadim Thiaw moo ko doon jàngal moom itam moo fa gën a ràññeeku taxawan ana xaadim lay moo ci topp xaadim lay moom nag dafa mel ne turu ndeyam ak baayam dafa ma xaw a rëcc bi ma koy bind dama laa gis loon sa baay nu tudd sa baay sëñ Modou lay mooy baayam yaayam sa yaay xadi lay di yaayam foo dëkk Touba mu dëkk Touba moom itam euh, ki ko doon jàngal tamit wécc na ma sax euh, mbay gay Mbaye Gueye Mbaye moo koy jàngal sëñ Mbaye Gueye moo koy jàngal aywa ki ci topp di jàng ci soxna yi muy maam Faati Seck aji si la mooy yaayam àll sekk di baayam soxna jaara moo koy jàngal kon ci jàngum quran mi fukki xale yi gis nañ kenn ku ne classe ba nga nekk diirub at bi yaa fa gën a nangoo jàng waxu mën a nag yaa fa raw wala yaa fa dàq tari waaye nongu donte amul xel dañ koy tànn ndax bu nangoo jàng donte amul xel sax dañ koy neexal waaye kon sëñ taalibe ñii mën nga leen a jox kenn ko ne benn enveloppe enveloppe yi nag li si nekk xëy na bu sëñ lu ñëwee dana ci jaar leeral ko nangeen ngeen ko denc bu baax nag am na ay dongo yu mag yu nekk seen biir xam naa ko ci waajuram teew rek mën nañ koo yolamal mu dem dénk ko ko bañ a toogaat ak moom si jataay bi koo xam ne waajuram teew na fi rek wala nga dem si ki lay jàngal jox ko ko mu fexe ba sa waajur jot si baax na mën ngeen a dellu aywa mën ngeen a dellu bu ko defee ci école bi tamit am nañ fa ñeenti xale yoo xamee ne ñoo fa gën a ràññeeku ndax ñeenti classe ya fa nekk bokk na ci Abdoulaye Sylla moom itam na jege si Abdoulaye Sylla Abdoulahi Diaw anamu Cheikh Bachir Sy Cheikh Bachir Sy anañu ñooñu yëg seeguñ Abdoulahat Silla mooy doomu moomi Silla ak Moodu Silla di baayam ca école ba gis nañ ne moo fa gën a ràññeeku moom itam bisimilah Abdoulahi Diaw Abdoulahi Diaw di doomu Kumba Diaw waaw kii mooy kii ñëw mooy Cheikh Bassirou Sy di doomu sëy na bu ture sëriñ Fallou si di baayam école ba classe ba mu nekk gis nañ ne moo fa gën a ràññeeku bisimilah mën ngaa dem walla nga taxaw bu mbokk yi gaawee buñ gaawul ñoom xanaa dañoo nekkul ci bas bi Abdoulahi Diaw ak Abdou si la dafa mel ne dañoo xaw a absent de tataa bi day dem Abdoulahi la waax Silla defal lu gaaw Abdoulaye jaw anamu Abdoulaye Sylla doomu moomi Sylla Modou Sylla moom itam gis nañ ne kalaas ba mu nekk moo fa gën a ji ràññeeku moom itam nañ ko jox am neexalam aywa Abdoulaye jaw moo ñu dese kooku yëg seegul damaa jàpp ne bu yëg rek sëñ Talla mën nga mën nañ laa yolomal nga dellu toog waaw ñetti yim des danañ si ñëw am na ñu koy war a joxe mu ma leen tuddee rek yow benn moo la des waa ñetti eh, daañu wax ñu ko war a joxe léegi mu desaat yeneen ñetti xale yoo xamee ne ñoom daara ji da leen a gërëm li tax ñu leen di sargal mooy dañ fee nekk nekkiin wu rafet kenn ki mooy Cheikh Bachiru Ndonga di doom ci maam Moor Ndonga ak Fama Sylla la dëkk Cilmaxa Cheikh Bachiru Ndonga li tax daara ji di ko sargal moom ren ji la war a def BFEM waaye du loolu mooy jàkka ji xale bu ndaw la waaye diiru juróomi at jàpp juróom benn waxtu julli yépp moo koy nodd amul wenn waxtu woo xamee ne dana jot te Cheikh Bass noddul si jàkka ji bu noddul rek daa fekk nekkul si daara ji mu génn dem këram wala feneen waaye saa yu fi nekkee rek mooy nodd kooku dañ koy sargal moom itam am na benn diplôme bu ñu ko war a jox ki ko koy jox mooy alxaaji sëriñ Seck kon Cheikh Bass Ndonga bu fekkee ma ngi fi na jege si sëñ Mouhamed waaw Cheikh diiru bi lim koy jàngal li ngeen yi muy nangu ak bëgg a jàng ak dégg ndigal nee na yëpp dajale ci moom nee na diiru lim koy jàng moom ah dégg nga loolu mu ne ki koy yàgg la tey na mhm. Ndongaanamu kon Cheikh Bachir Ndongaanamu na jàll si na ñëw jege si mag naa sàggal képp ki ci topp tamit na jege si ñu koy wax Tafa Seck ak Jili Seck ñoom itam nañ gaaw jege si ana Cheikh Bass aywa Tafa Seck bu fekkee ma ngi fi na jege si ak Jili Seck ñoom itam nañ ñëw mu gaaw temps bi day xaw a dem. bu dee Cheikh Bachirou ndong Alhaji Serigne Seck moo koy jox diplôme am bu dee Cheikh Bachirou Ndonga euh, bu dee Tafa Seck euh, bu dee Tafa Seck euh, ana Tafa Seck ñëw na Jili Seck jege si nii. bàyyi ma yaasin na ñëw joxal ñu kenn ki di am bàyyi ma yaasin ñoom itam am nañ ay neexal yu leen bàyyi taala war a jox waaw bàyyi ma yaasin moo jël place u taala may bàyyi ma yaasin na jege si ak sëriñ xujja tamit di xalifa alaaji sëriñ mi moom itam na jege si mooy jox kenn ki diplôme am ana alxaaji ana sëriñ xuja bisimilah man ngeen a ñëw jox ñaar ñi ñeneen ñi xaar sañ kii waaw ah, Cheikh Bass daa xaw a yéex yow man ngaa jox sëriñ jil sekk bala ñu koy jox tamit comme ni ma waxee Cheikh Bass Ndongo kii tamit li tax ñu koy jox diplôme bi muy jili sekk mi kii ba mu dalee nekk si école ba léegi at mu jot classe bi mu nekk mooy jël première ren jii la war a def BFM ñuy ñaan yàlla defal ko tawfiix ñetti at si la jàng Quraan booba ba léegi classe bu mu mas a nekk mooy jël mboolem li ñuy tere si daar ji kenn mësu ko see gis moo tax moom itam ñu koy sargal kon alaaji sëriñ sekk mën ngaa jox jiili Seck mi ab diplôme te bisimilah doomu sëriñ Abdou Seck la waaw. jërëjëf mën ngaa yeewee ko léegi taxawal bàyyi taala war na laa jox benn apolom ana enveloppe bi ana baytaala na jox sëñ bi jili sekk demal baytaala jox la sa enveloppe bàyyi sëriñ mën nga yeewee ko waaw baytaala joxal ñu ah taxawal daa mel ne sëñ Abdou day ñëw alaaji sëriñ te ngaa dellusiwaat waaw ah, bàyyi ma yaasin bàyyi ma yaasin alaaji sëriñ sëriñ xujja bisimilah bàyyi ma yaasin naxaar seex Bas ñëw Cheikh Bas mi wër waaw Tafa Seck mii tamit waaw Jili Seck jox nañ ko Jili Seck moom la wax ba léegi nañu ko jox avalon eh, mën ngaa dem Jili Tafa Seck mii tamit li tax ñu koy jox diplôme bi moom yàlla dogal na fi la doon jàng alxuraan waaye wëttuwul alxuraan waaye diplôme bi li ñu si def mooy dañuy seede ak njubam xam nga dongab daara bu tollee fii ci dëgër ñu ci bari danañ def ay ndëng ndëngte di def leneen leneen waaye kenn mësu koo gis ki lu ñu tere ba tey jii si la ren jii si la war a def BFM war a jeexal kon tamit bëgg a wane ne daara ji gërëm na ko ngir yeneen moroomam roy si moo tax ñu koy sargal nii di ko jox diplôme bi fu mu mën a dem ëllëg mu xam ne daara ji mu nekkoon gërëm nañ ko ki ko koy jox mooy alhaaji sëriñ xujja di mag ci alhaaji sëriñ sekk mais di jëwriñi daara ji kon bisimilah man nga ko jox diplôme am tourné ko tourné ko ñu mën koo jël waaw ki ci topp nag mooy Cheikh Bachirou Ndonga bu fekkee yegg seegul si na ah Cheikh Ndonga moom ba léegi yegg seegul xam naa dañuy am koo ko jëlal rek wala bu ma jeexalee sama kàddu fekk mu ñëw bàyyi ma Yacine nga jox ko diplôme bi Abdoulaye Diaw mii tamit ci gën a yi gënoon a jàmbaare ci école bi bi ñu joxe dafay nekkul woon xam naa jaaraat ci du yomb waaye demal bàyyi taala may jox la sa bàyyi taala may jox la avalom demal bàyyi taala kon jox la avalom Abdoulaye déet Abdoulaye Diaw ca école ba waaw demal bàyyi taala jox la avalom Cheikh Bass ma ngi nii Cheikh Bachir Ndongo mi juróomi at jàpp juróom-benni at mooy noddu si jàkka ji amul wenn waxtu mi tardi julli juróom lu jafe ci mag rawatina gone loolu tax na ren jii mu war a jeexal war a génn moo tax daar di ko sargal moom itam di ko jox diplôme bi wane na gërëm nañ ko kon Baye ma Yacine moo koy jox bisimilah Baye ma Yacine. yal na sa bàyyi taala mbay yoreel na la benn aaxulam kon ma ngir njëkkante waxtu yi suñ kàddu xam naa du gudd suñ kàddu moo ci des ak kàddu alaaji euh, Fallou Seck mi nga xam ne mooy kàddu daara ñaari kàddu yooyu bu jeexee rek mën nañu waat dem julli ji ak benn xale bu war a jàng quran tëj ko daanaka suñ kàddu du gudd ndax temps bi li si jàll bari na li ñuy wax rek mooy damay soññ waa jur yi déggoon naa biram jaar si sànq mooy ñuy nemmeeku seen doom yi nemmeeku nag man waxuma woote téléphone ndax woote téléphone moom du nemmeeku dafa yomb torop ndax da ngay toog amoo amoo loo def rek yor sa téléphone di xool numéro yi ban nga war a woo kon woote ci daara ji dégg sa doom bu ñu la waxee nga naan déggoon naa ko loolu tax doo fi ñëw loolu du nemmeeku nit ki fu mu teg doomam war na koo mën a jaral mu fay dem ndax ñii nga xam ne ñoo yor daara ji ñoom ñu ngi fiy ñëw di dem ak dikk jamono bu ne te wax dëgg yàlla waajur yi leen dénk seen doom ñoo ci gënoon a yàlla kon waajur yi ñu ngi leen di dénk képp ku fi am doom dee fi ñëw dee ko nemmeeku dee ko seet beneen bi tamit mooy boo ñëwee. mbaa looy añeeg looy reer ak looy yooyu jërul laaj daara ji tabaxuñ ko ngir dong bi ñëw ñu ko jox añ ak reer ndékki yooyu am na ci kër yi jàng quraan ak yar ko soo ñëwee mën ngaa seetlu yooyu ba xam ma ngi ci gone gam déet waaye gone gi looy lekk fooy tëdd ak ku fi teg sa tànk xam nga ni ñu ko defaree waroo fee ñëw sax di laaj gone gi lu muy lekk ak fan lay tëdd gone yu bari daara ji dàq seen i kër liñ fiy lekk moo dàq la ñu lekk seen i kër kon boo fi ñëwee sa yitte moo war a nekk gone gi am njàngam ndax ma ngi jàng ndax ma ngi yar ndax tabax tabax yu rafet taxul am njàngaam tabax yu rafet taxul am yar am loolu nga war a seetlu ci gone gi yooyu nag li ci gën mooy nga seet kiy jàngal gone gi nga laaj ko gone gi am njàngal fii bari na waajur yoo xam ne danañ fa dugg ba dem duñ xam kuy jàngal seen doom nit jàng na fi ba mokkal bañ def conférence bi jox ko shahada mu dem waajuram teew fii nangu shahada bi te nuyoowul mës du jox loxo ki koy jàngal bari na fi loolu lu fi am may fàttali na waajur yi jéemu ñoo xam benn waajur benn waajur ndongo wala ñuy sàkku ci moom dara waaye boo bëggee xam dara sa ndax njàngum doom la ca gën a gaaw mooy laaj ko waajur bi bu ñu la bàyyi woon loo xam xam alxuraan bu dong bi ñëwee ci yow boo koy natt sax du tax nga xam ko dëgg-dëgg lu dul waajur ki koy jàngal dala cee wax dara laaj boobu li tax mu am solo dafa am benn gone goo xam ne diirum ñaari at ci gannaaw bi ma koy jàngal dafa tabaski ji seen kër waajur wi xam naa nattu ko ay barab xale bi demul mu woo ma ma lan moo sikk si xel mi ma ne ko gone gi de incha allahu taala bu jàngee ñaari at dana mokkal quran tabaski ga ma ko waxee woon loola tabaski ren gii ci la gone gi mokkal muy ñaari at te bi ma koy wax loolu xale bi téere suuf bi la jeexal nekk ci téere kaw am si ñetti at am si ñetti sib dama la bëgg wax ne jàngalekat bi gone goo ko laaj bu doxee moom tuuti rek mën na la ci wax résultat boo xam ne dara du ko dindi kon même boo xamul alxuraan sax war ngay jéem a xam alxuraan ñaata xisib la sama doom ñaata xisib la am ñaataa ko des ndax muy góorgóor loolu yomb na waaye waajur yu bari séquñoo loolu kiy jàngal seen doom loolu nag maa ngi koy dénk waajur yi nañu def loolu nañu ñëw tamit ci daara ji loolu moom xam naa taa bi gàtt na te xamu fu waxtu wi toll bu ma ci doolee dara rek mën na maa yàqu taa waaye loolu moom lu mu gàtt gàtt bëggu naa ko cee dolli beneen bi mooy parents d'élèves yi am na ñaari groupe muy bàyyi daara yi ak ndeyi daara yi bàyyi baarakat moo jiite bàyyu daara yi am na carte membre yu ñuy jaay fële par mille francs bàyyu daara yooyu nag ren jii lañ toog xalaat ñoom ba gis ne daara ji daal xam nañ ni ki ko yor am na yéene mën naa def lépp waaye daal mënatuñoo muñ daal ñu ne faawu ñuy barkeelu si leen ci jee bedd groupe si li matul si matul semaine ñu dajale si addi yu bari ëdd addi yu bari indi ko ci daara ji groupe ba nag bàyyi jiite bàyyi baarakan ak Mouhamed Diang ñoo ko jiite képp kuy parent d'élève na nga jëm a bokk sa groupe bële képp kuy yi daara tamit na nga jéem bokk ci groupe bu soxna yi ñoom itam am na gura boo xam ne maam jaara jag moo ko jiite yooyu yëpp bu sëñ lu ñëwee dana ci gën a jaar waaye loolu daal mooy ci gàttal loo xam ne mënuma ko woon a ñàkk a wax di jéggulu ci kàddu gi waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi leen di nuyu di leen sant. di sant lu jiital ci jàpp gi nag a ku ni ñëw na teew fi wala boog bari na lool ñu fi teewti te xam naa ni ñenn ñi seen i warukaay melut na war a mel seen i wér melut na war a mel kon sant na leen baax a baax yàlla yàlla fay leen seen jéegoy dëkk ak seen jéegoy dem sant nañ leen lool yàlla yàlla fay leen taxawu ngeen alxuraan yàlla yàlla taxawu leen kon ñu ngi leen sant yëf yi luñ ci mën a wax rek kàddu yi cant la di sant nag beneen sant googu dama koy beral nag sama rakk muy sëriñ Fallou ndax man boo xoolee géej naa fi lu matum at te dara yàquwut moom mooy def léegi-léegi fii lay fanaan wala mu ñëw yendu fi lépp mu di ko saytu te loolu bu ma ko bëgg a nit ko ni bu ma ko bu ma ko mënoon it xamewuma ko ni kon bu ko dee def lu ko doxal loolu la kon man lu ma ci digg dégtale rek mooy ab ànd nii rek la ñii dañuy jàpp ci lii ñii jàpp ci lii lu ci waay man ba mu ko xeeb na ko di jàppe na ko di jàppe léegi nag ñun sax ñoo ngi ci doon jéem am na fi kilifa gu fi teew si boo xam ne ci ñuy liggéey ci wàllu loolu ñuy wax waqaf la ay kilifa ma ko fi yónnee mu bokk ca te bi ma ko xamee matul ñaari semaine mu ni dana fi ñëw ndax nii boo ko xoolee nii ñu ko yore dañoo bëgg mu mu doon ba abadan bëgguñu kenn moom ko loolu ñu di leen ko yégal yenn ñëpp ni fi teew lii bëgguñu kenn ni moo ko moom wàllu yàlla rek la waxtu wu ni muy doxe nii ñoo ngi jéem it wutal ko loo xam ni dana ko mën a dundee waxtu wu ni waxtu wu ni mu di ko mën a dundal moo xam gis nañ nit moo xam gisuñu nit waaye dañoo bëgg a wutal ko loo xam ne dana ko dundee loo xam ne waxtu wu ni dana mën a yor li ba nga xam ne yaakaar yëpp waxtu wu ne muy gën a feddali ko di kanam loolu yëpp yéen nag ñu ngi ci liggéey ànd ko sëriñ Fallou bi ak sëriñ Talla Mbaye ak bokk yëpp loolu yëpp lu ci am rek ci lu gën a avancé rek da ngeen ko dégg insha allahu taala xam naa kàddu yi moo yombul ngir ñu liggéey yëpp si te ñenn ñi xam naa soxla nañ añ moo tax xam naa muy wax gàttal ko fi rek xam naa dina tax ñu bari bàq ci moom waaye wasalaamaaleykum euh, ngi sant yàlla bu baax ci suñu teewaay fii nekk ndawalu haute autorité di waqf yàlla dogal sëriñ sëñ sëriñ nekk suñu wëllëre nekk suñu partenaire koo xamante ne ni wàllu def lu baax da ko yitteel ci Sénégal. ñun nag tey biñ fi ñëwee xol bu sedd guy yu lañ fi àndal ndax visité nañ daara ji ak li fi nekk lépp sëriñ sëñ bi nag am yéene yi def bërëb bi waqf waqf nag buñ ko waxee mooy taxawal am mbir sàmm jëmm ji waaye saraxe meññin ma loolu ci boppam mooy waqf kon sàmm jëmmi mbir mi nga taxawal waaye la cay meññee nga jël ko saraxe ko ku ne xam na ne daara ji buñ ko taxawalee def ko waqf ba faw ak ñu koy taxaw daara ji day wéy kon loolu dañ koy tudde sadaqa jaariya ndax yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne doomu aadama bu dëddee bu dëddoo àdduna léppam day taxaw ba mu des ñett yi mooy mu bàyyi fi doom ju baax ju koy ñaanal wala mu bàyyi fi loo xamante ni nii teen bu ñuy naan wala alquran joo xam ne dañ cay jàng wala mu bàyyi fi ab sarax boo xam ne day wéy ba faaw kon daara ji buñ nee waqf la ak lépp lu aju ci daara ji loolu day wéy ba faw ba ilaa yawmi diin dara gënta neex nag nit ki taxawal mbir moo xamante ne nii même bu dëddoo àdduna mbir mi day continuer di wéy ndax alquran danaan rab rabbi lawlaa axartani ila ajalin qarib fa as assaddaqa néewul fa asuuma ma julli néewul ma woor néewul ma aj waaye ma sarax kon loolu day wane ne sarax buy wéy bu am am solo la haute autorité di waqf nag ab bànqaasu état la boo xamante ne nii dañ koo taxawal fii ci Sénégal képp ku bëgg a def waqf moo lay gunge jàppale la sàmmal la sa alal loolu nag moom la ñuy tuddee protection juridique mooy na yow ni nga ko bëggee noonu lañ la koy sàmmale ba boo fi dëddoo sax lépp li nga fi bàyyi dañ la koy sàmmal ba ilaa yow mi diini kon loolu ci tënk mooy waqf comme waxtu àjjuma bi dañoo dab xam naa dañuy yemale foofu suñ kàddu wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin ñoo ngi leen nuyu di leen di leen dalal ci tànk yi ngeen ñëwee fii ñoo ngi nuyu rek di ñaan yàlla mu fay la ci yorub xanaa di tàmbali nuyu yi fi yable muy El Hadj Ñaxal Seck mooy jotaay mooy boroom jotaay bi yàlla na fi bàyyi sëñ ba Seck ak Mouhamadou Seck ak Djili Seck Mbayal ak Mor Seck ba tey sun kilifa gë ña Taïba tam yàble nañ fi ab délégation Badara Seck nañ ko waaye mu leer bata may maire bi leen fi muy Mor Seck ak Dame ak ñi mu àndal ñëpp ndax mam waar ma sanc Taïba muy muy wajju sëñ Badiane sëñ Mour Badiane mi sañ ci kër gi dëkk bi kon ñoom dañu leen gërëm bu baax a baax ndax xam ne tey ba sori na xanaa kon di ñëw ci wàllu euh, liggéey bi rek bi gaa bi ñu sante suñu yooyu ba noppi ñu teg sëñ Xuja mii njiitul dëkk bi bi suñu kilifa ginnaaw bu ñëwee jàllee ñoo koy sant bu baax ni ko sëñ daar waxe rek ci ak mën a muñam akuk lewatam akuk euh, mën a jégale lu bari ndax xam ne dëkk ak ñoom yaa ngi muñ bu baax a baax a baax xoolut ñum ci mag xoolut keneen lépp rek mu xam ne liggéey bi ab liggéey ma di ko di ci dolli eh, àlla mi nga xam ne si moom itam moo fi ginnaaw bu sëñ wéyee rek moom euh, moom ak ci dëkk bi ci waa Bayti Seck gii ak Mamor mi nga xam ne moom daa ànd liggéey beek ñun moom kon ñoom ñu ngi leen sant ci ndigalu sëriñ ndax ñoom xam nañ ne barab bi seen baraba sëriñ itam xam ne ne fii moo ko yilif nangu na kilifteef gi ñun ñi fi ne di ñëw ak dem ak ñu dem nangu nañu nanguñu ku ñu yilif kon nag loolu moom lu ñu yàlla defal la ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax njabootu Baye gi daal di sant itam euh, sëñ Moussa Diop ci Béyti Diop ak Serigne Mati mu leen tuddee ci sant googu rek mu doy ñu yeggale na ko waa Béyti Diop Moussa Diop ak Serigne Mati ak yaay daara yi xëy ñoom ñuy ñoom daanaka doo xam lay wax ci ñoom ndax ñoom yëmuñ ci fóor rek fii waajur yi waroon a féete euh, gone yi na na wóor ne waajur yi ñoom ñoo leen féete ñoo leen di toggal bu fi kenn newut ndax tefes gi ñu jub rek bu ñëpp demee ba ngay desiwaat loolu ñoom ñoom ñooy togg ba toggat yi di wax fóot mi ñoom ñoo ko yor kon nag ñoom amuñu seen fay waaye xam na yàlla rek mooy taxal euh, mooy tax di liggéey si njiitul soxna Daba Ndiaye kon ñoom moo ñoo takk sant gi ci loxoom mu tegal seen loxo ñoom ñoo ñëw xanaa di ñëw ci. waa daara ji ñi xam si moom mën naa ne ñoo waral lii ndax daara moom foo kuy jàngale nekkut la neen luy tudd waaye doon daara te ñoom ñi jàngale ci daara ji nangee sax ci daara ji mooy tax ñu mën am ab résultat nangoo muñ moo tax ñu mën yor gone yi ndax gone képp ko yor danga muñ kon ñoo ngi leen sant bu dee ci alxuraan ji buñ ci tuddee sëñ Modou Guèye mi ko jiite ak sëñ xaadim caw ak mambay gay dañu yóbbaale ñëpp xam ne lii yëpp lim ñëpp du yomb bu demee ci école bi tam bu ñu ci tuddee Aliou Sarr ci français bi ak xaadim Sall dañu yóbbaale képp ku jàngale foofu ci français bi bu ñu demee ci arab bi bu ñu tuddee sëñ Mandiaye Diop mi doon wax léegi ak sëñ Moussa Mbaye mooy itam mu yóbbaale ñëpp kon ñoo ngi sant ñooñu ñëpp bu ñëwee surveillance bi muy sëñ Biram Lay moom ñu bari xam nañ ko ndax gone yim taxawal a tax ñu ñu ñu xam ko kon cantuk sëriñ xujja mu jaar sëriñ Seck ñëw ci moom maa ngi maa ko jot li man nag li may wax toujours rek dañ may wax la may wax waaye daa mënut a wax na damay gone nag ñu fexee fexe ba noggutuma teg ma yooyu yëpp te mënu ma ko teggi waaye saa man man bëriwu ci ñooñu itam bu fi ma tuddee sëñ biram mi ko jiite eh, ak eh, Cheikh Ibra ak Samba Thiam ñi ko séqal mu ne ci bunt bi moom itam su ma ko tuddee mu yóbbaale ñëpp kon yéen ñëw leen sant cant goo xam ne si kawe suñ jot ndax li ko suñ Mor Gueye waxee rek kuy dem ak a dikk résultat amee ka demut dikkut moo ko mën a indi waaye kay dem ko dikk mënu ko indi kon ñoo ngi sant bu baax a baax a baax di sant ñi ci wi ñoom itam bu ñu fi amutoon kenn du fi maa nekk su ma tuddee soxna maam ami si la ma ko jiite ak soxna caw Thiaw moom itam mu yóbbaale ñëpp kon daal sant moom mënta a weex sant waxtu wu jot bu ñu ñëwee lii dong la ñuy wax sant nañ sant nañ waaye yow amul lu ko ëpp bu ñu amul lu ëpp sant dañ koy dañ koy indi teg ko ñëpp ñëpp jàkkaarloog moom waaye amuñu ko te yaakaar naa amut lu ko ëpp itam nag ndax xol bu set rek la xanaa di ci teg eh, lenn ci wajjur yi ñi nga xam si eh, at mu jot ñoom itam ña ngay am ay taxawaay bu baax dama jël li ñuy def waaye ñëw gi ñu fi ñëw di nemm si gone yi xëy na maase wut moo tax ma leen ci wàjjur yi waaye bu ñu seen day maase kon nag ñooñu tam ñu ngi leen sant ñëw gi am solo lool ba ci njàng mi wàjjur yi xale bi di gis dafa am lu muy muy dimbalee kiy jàngale xelum xale bi dafay dal bu ko defee mu ñii ay morom di gisee seeni moroom mu di gis ay moromam waaye yow ginnaaw yow at bi day dem ba jeex ñëpp di gis seen i waajur yow gisoo ko loola lu yàq ci am njàng ba yàqu yàq ndax xel moom mën naa naqari waaye am loolu moom xel du ko naqari waale kon nag ñoo ngi sant waajur yi yi nga xam si ñoom waxtu jot ci loolu ñu ngi fi ñëw di teewe si di xañtu xale yi kon ñoo ñëpp ñëw ngi leen sant bi ñu santee jàngalekat yi ak ak ñu gis kii ñuy santam ñi ci biti tey taxawu njàng mi njàngum alxuraan mi ndax ñu koy taxawu ñoom dañu fay jóge chaque trois mois ñu ñëw évaluer njàng mi gone gu ne ñu xam foo toll xam sa bind xam sa nafar xam trois mois yi ñu war a ñëw itam bu dara gàllankoor amut ñu mën ne fii bu ñu ñëwee fay lee war a fekkaat bu ñu la fekkaatu nag dañu xam ngànt la ci yow xale bi la wala ngant la ci kale jàngal la waaye lu ba ñoom ñooñu waxtu wu ñëwee da gurgurub jàngkay daan tax waxtu bu ñëwee fu ñu bindoon xale bi ne ko bu ñëwee nañ la fekk li ci ëpp dañ fekk ñu wees foofu ka ko jiite di siñ ma sàmba xuma ànd ko ak Abdou Seck ak Abdou Koudou Sylla chaque trois mois ñu ñëw Masamba ñoo ngi koy sant bu baax ndax loolu da ko yanu ay at da séenuwu ci dara oto sax bu ko yoree nangu ñu ne ko def ci essence gàllankoor moo ko tee ñëw waaye daara ji moom damay jàpp ne ba ngay waxta mu ne daara ji mook sama daara waaye damay jàpp ne yëmaliwu ko daaraam ndax wëruma lim li fi daj jàpp naa ne ko daj daaraam ndax xëy léeg fi lay jullee si fajar fajar bu jullee si bu jullee fajar ngoon la fi jóge kooku ñoo ngi koy sant bu baax a baax a baax ak ñi mu ànd liggéey bi xanaa kon di ñëw ci wàllu liggéeyu daara ji ginnaaw bi ma santee ñi xam ne si ñoom lañu ko séqal muy sëriñ ak sëñ Talla Mbaye toujours maa koy wax man maa ngi ñëw dem ak ñu may dégg ñuy wax waaye loolu lépp leen di cee mënta ñàkk te ñëpp mënuñu ko ñëw mënta ñàkk waaye euh, di wax itam du mën a ñàkk waaye du luñ man waaye du luñ mën a ñàkk ñu ngi leen sant ñoom bi itam taxawaay bii taxaw ba yombalal ma sama ñëw muy bu ñu ñëwee daara ji lu ñu jàmbat su ma dem yóbbu ko ñu loolu ñu faj ko kon ñoo ñu ñu leen sant bu baax a baax a baax a baax di sant lenn ci mbokk yi nga si ñoo jàpp ci bis bi bu baax baax muy euh, ñoo xam ne si bi ci bis bis bi jot li fi fur wi muy Thierno ñoo ak Cheikh Seck bëgguñ sax ñu lum tur yi waaye nag lu baax moom koy def kenn du ko mënta ñàkk a wax ak Cheikh mbay mu ndaw ak sëñ Moussa Diakhaté ak sëñ Khadim Touré euh, indi nañ fi xéewal yoo xam ne ñoom itam lu ñu def ci ndox rek ci ñoom ñoo ñu la jóge nanguñu ñu jënd dara biñ nee dañuy jënd euh, fur yi ak akum ndox ak jëm ci ak lu jëm ci euh, bis bi dañoo indi lu doy loo xam ci ñun lañ jënd lépp ca loolu lañ ko jënd te xaalis booba jeexul kon nag ñoom itam am nañu ak cant bu baax a baax a baax a baax a baax muy ñëw ñu ma lim ak ñeneen ak ak ñeneen ñu mel na ñoom Omar Seck moom daa siyaare ji waaye moom foofee la jaar ak Seex Seex Mbayam Ndey Seck sëñ Tallou Khouma moytu andi na fi ay xéewal yu bëree baree bëri moo soxna Mati Si la soxna Fadi Mbàkke mu tam andi na fi ay bool ñoom ñëpp ñoo leen sant bàyyi daara yi nag reen dañoo defal loo xam ne si ñëpp dañu ko war a yëg ñoo ko yaayi daara yi ndax dañoon lu ay ay ay mbana bi ko yaay daal yëgee dañuy dem jënd ay mbana fukki mbana ak juróom ak seeni forn andi ko benn bàyyi daal yi déggee ne loolu moom li ci def lu ñu war ñëwatuñu jënd lu day lu day ci ay ay palaat ak i bool ak eh, ak i tarmus ñu xam ñu loolu moom bu ëllëgee duñ ko luyeeti kon nag ñun loola payam amul ba tey kon xam yu ñëw ci ginnaaw dañ fi am ku fi ñëw te bokk ci état bi di wax ci affaire waqf waqfu daara ji moo itam lu mat leeral la leeral naa ko daaw waaye ren itam yaakaar naa toujours dana jar di leeral liy dugg ci daara ji ak liy génn ak ak li ñu indi ci daara ji dama ne daara ji at mu ne buñ dajalee li fiy dugg muy barkeel nit ñi ba dee na huit millions six cent mille ndax da nga da ko calculé ci weer wu ne ñoom huit dugg ci daara ji par weer ne huit mille ñiy barkeelu daañu ko indi waaye daal ji moom chaque weer moom dana fere euh, moom daara ji weer dana fere sept million sept cent euh, sept millions euh, sept cent soixante mille par weer weer wu ne daara ji dana yooyu nag yu sew sawal yi bokkuñ ci maanaam bu dee ceeb ak diw un million trois cent cinquante mille la bu dee dépense espèce bi ñu jox jigéen ñu duggi un million six cent mille la salaire yi quatre millions trois cent dix mille la li ñuy jënd muy ndawal weeru nañu jënd euh, aw nag ak fruits yi mu àndal cinq cent mille bu bu am bu ñu ndaw itam dañ ko remplacé ak ginaar loolu nekk un million deux cent mille loolu boo ko taalee indiwoo yenn yenn frais yi ñu ngi sept million sept cent soixante mille at mi nekk euh, quatre-vingt-treize millions cent vingt mille at ñu indi mbirum alxuraan mi mi nga xam ci moom tam wax fi woowu moo ko yanu ànd ko daara ji ndax mbind mi daara ji moo ko jur bis tam mbind mooy tam mi nag soixante-dix millions at mu ne moom itam bi ñu ko tàmbalee ak léegi ñu ngi ci juróom suñ juróomi at moom moo tax wax fi yanu ko buñ boolee yooyu yëpp teg ci neexal yi ñu neexal jàngalekat yi ndax dañ na xale yi tey tey xale bu tari bu ne ki ko mokkalal dañ la jox cent cinquante mille xale bu tarif bi bu ne di ñoom bi sept yi kala jàngal bu ci amee kenn am na cent cinquante mille bu ci amee ñaar am na trois cent mille bu ci amee ñett am na quatre cent cinquante mille xale yii fi nag loolu ñu ñu tegoo ko ngir gërëmi ko ñoom ñi saytu daara eh, eh, yor njàng bi loolu bu ñu ko boolee ak képp ku ne ci daara ji jox nañu la neexal boo xam bi ñu ko boolee bi ma ñëwee indi ma million indi 6 millions 665 mille mooy neexal ren bi année bi ñu ko boolee bi ñu ko boolee waa bi ñu ko boolee waa daara ji bi ñu totaalee loolu lépp ak at at loolu ñëw fekk si ko ñu ngi ci 169 millions 700 yoo xam ne si maanaam li mu ñu yenn yi ànd faj mi gone yi yenn leen ci bul si euh, tudduñu ko kon nag loolu xam nañ ab yenn bu diis la waaye leeral tam nag ginnaaw dafa am ku ku ñu ko état dafa yebal ndax waxtu ndax waxtu moom lay saytu moom ñu leeral ko ne ko daara ji wutal nañ ko ni ñu ni wute kër gi muy tudd kër Modou bajaan noonu lay amee kër Dakar muy kër Modou Badiane lu génn ci kër Modou Badiane googee muy kër Modou Badiane gii ci lu ci location waaye nag ba tey nag mënuñu am ñett maanaam euh, boo xaajee li ñuy joxe ñun ñett euh, ñetteel beeg mënuñu ko am kër ga mënu ko génneegul kon na li ci des moom ci poste yi lay génne waaye moom itam yëgu ko ndax luy ndax lii am ci euh, liy taxawal muy kër gi amutoon kon nag dina amutoon te am na léegi yéen ñi yow mi fi yow ñu yebal la fi loolu da nga bokk xel xam ne li wax fi lii kër Modou Badiane ci Dakar am immeuble Modou Badiane li mu am mënut a yor daaree ba Badiane ndax daañu génne cent soixante et quelques te moom xañ na mënu wes ci moom soixante millions jëm kaw kon loolu itam yéen ngeen xam ko ba xam yéen foofu fan ngeen ci war a jaar ak ñun sakkuwuñ ci nag ak ak ndimbal waaye won ñu aw yoon ndax loo gis ñu daa war tegu ci aw yoon yoon woo rek lañ bëgg ñu tegu ci loolu daal des na ko leeral ba ku fi teew xam ne li ngeen demee yow mi fi yoon itam nga bëgg ñoo jàppale bat ba gën a teg daara Modou Biane ci ci ci aw yoon comme ni ko sëñ bi waxee ba ëllëgee lu mën a xew ci ñun ñëpp itam daa jom rek incha allah loolu lañ loolu lañ soxla te loolu xam nañ état rek moo ko ma taxaw taxawal ko aw yoon wax ma ci bu ëllëgee loolu lépp dana mën a am loolu daal jàpp naa ne moo ëppoon ci kàddu yi xanaa di sant waa dëkk bépp nag di sant sunu waajur yi yi fi ne ci ci ay jigéen soxna Mbette Touré ak ak ak ñi fi mbokk ak ñi fa nekkandool moom classe moo liggéey xëy dañoo bëgg ab ceeb léeg ma ma soxna Mbette li li fi indi ci ay yàq xam nga kooku moom xam naa ne rek sa moom ñoo koy toppatoo kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp xëy na wax lépp moom yombut waaye nag lépp dañu koy junj rek ba maam euh, euh, bàyyi leen mu jàll waaye daal ku ma tudd ak kuñ tuddut naa leer na suñu yéene yaa ngi suñu xol luñ tudd ak luñ tuddut loola xaj na xataaya tax mën ñu ko tudd ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant suñu kilifa yi bu baax muy waa Taïba waa waa waa waa euh, Mbakol ak sox sëñ Mate Sylla mi tey bis bi roy téef lañ bëgg yéen gone yi ngeen roy ko dégg ngeen li ñu wax ci moom mooy kan mooy ki nangu digal nangu kilifteef gone bu ko def say waajur sant sant yàlla ci yow moom moom lañ xam te bëgg ko ci yéen moo tax ñu indi ko bis bi jox ko ko kon nag dégg nga liñ fi wax da ngeen ko re yéen ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum wa rahmatullahi maa am lu ñu indi woon waa ndey daara yi fóotal daara ji fóot mi ak toppandoo gone yi yéen waa dëkk bayti Seck bayti Diop bayti Ndiaye ñu ngi leen sant bu baax a baax lii enveloppe cent mille la seen tokko ci seen loxo gone yi ñu doon tatal moom jox nañu seen neexal kon kenn desul ku ñu war a neexal ñoo ngi sant yàlla di gërëm yàlla wasalaamaaleykum wa rahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله